معزما مبشرا بسكر أو لحم فإنه قد سفيرا بما يديم البصارا ولا يلاقي درارا يوم اجتماع الأمم فمن تاه منايا لمن له قد خرا مبجلا فخبا خيرات أهل العمام ومن على سين قرا مولد سيد الورى تبركا فسيرى نموه بالفدغم وإن هلا ما إن خوري مولد خير البزار فسرب بالمتهر يكف كيد المرقم ينوير القلب سراب من سالك الما بالمجاب والقلب يدنهب وعن سقاء يحتمي إحياء مولد البصير يحمل عيال والديور في صفاء لصدور لكل هاد ينتمي salaam ala xayril basar baqin yudi mulil busar bilali was sambi durar masalamin yatamin ya mulhiman qad wafaqa salli ala man quliqa wal xalqa fa خلقك الخلق والتسلم قد كان ذات وسوتي في القد جالس توتي ولم يكن بالمفرات ولم يكن بآدم ولم يكن متهما ولم يكن مكلزاما بل فاق كل من ساما من منتام لآدم كان يطول كل من ما ساه فيه كل زمن وكان واسعة يضحك بالتبسم وهو جليل قلب bayaadu musarrabu bi humratin wahdabu wanjalun zura sami yaftaru fi asnabtisam kalbarqi aw habbil ghamam wa dahku yajlu zalam kasurujin fi zulami wajhu mudawwaru wa huwa qamisun azharu wa huwa bahiyun asmaru مرتل التكلم كان ماء الذهب في خده المهذب وكان سبط القصب عرنينه ذو شمم كامل حسن أدعج وأشنب مفلج وأشكل مبتهج والوجه ماهي الغمم وهو أكمل الورى خلقا وخلقا زهرا wal mislu qattu lam yura walan yura fi siyami ahmaduna rahmatuna hamiduna ni'matuna mahmuduna farhatuna wal juudu musridiyami ahmaduna rahmatuna hamiduna ni'matuna mahmuduna farhatuna wal juudu musridiyami sara li kawniya abdallah yeey bihi qadiman li rasulillah yeey sabata kawniya qalilalahi billahi sarmadan habiballah yeey muradu qalbiya muradu lahi ma masarati rasulillahi bixtu muraadi bi muraadillahi wasaanani an jumlatil malaahi raama rasulullahi min ilaahi kawni xadimahu wa abdallahi baabi qati ibadallahi allahu fadlan saaka fadlulaaye bilaayi ahbabtu rasulallaaye alayhi xayru salawatillaaye wajhil ummati rasulillaahi alayhi xayru salawatillaahi kunni bi jaa'i rasulillahi malikana عليه غير صلاة منك عن قبل وارفع نسامي يا سجدا وتكريما ولا تردنه يا مصيب العلل دم النسام إلى سيس يا بغدا ولا تردن يا مصيب الخلال سواك لم أرجو في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء لي يا رب كن لي وقود لي بالرضا غردي وما التمست بجاه المنتقى أني صلي وسلم على المختار في الكرامة وباسرا بالنظم mi afdal rusuli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barke borom Tuuba mu am solo moomu ak ci barab yu am solo yi yi nga xam ne eh, jàng na ko cooy wax di yàlla ñu doon déglu it doyaluñ